li ngay seen mooy njeexite li ñu tudde yëngute maanaam tremblement de terre muy séisme yëngutug suuf nag la ñu la bëgg leeral lan moo koy waral waaye itam ana ban phénomène ci li ñeel géologie mooy indi lu mel nii wax nañu nag ma nga xewee ci Turquie waaye yëmu fa daa laalaale ba Syrie mu xëy na oto yi immeuble yi waaye faat ay nit ñu bari yàlla na yàlla yërëm way daw li ñi ñu leeral la nag phénomène bii dañu koy tàmbalee ci suuf si nga xam ni fi la mbir di xewee boo nu toppee niki nii la suuf si mel yore melo mulum bu fii dee leer di bëccëg fële lëndëm di guddi li ngay seen nag mooy melaw li ñu tuddee les plaques tectoniques muy lalteg yu tabaxu yi te mooy li nga xam ne mooy moolub suuf si tey waral li ñu tuddee volcan yi ak li ñu tuddee tremblement de terre yi muy yëngutey suuf yi. diggam yi mu am saa soo xamee ni mbëkkante na mooy jur li ñu tuddee montagne muy aw doj. li ngay seen ni njeexit yi misaalum yëngute yi suuf la muy li ñu tuddee tremblement de terre waaye loolu mu ngi juddoo ci saa soo xamee ni ñaari plaque tectonique wonante nañu ginnaaw wala benn fay am maanaam saa boo xamee ni diggante ay toj boo ko sësali woon nga jël bàq bu tooy daal di koy taf ci kaw saa boo xëccee ñaari toj yi bàq bi day daal di mampu dem ci biir loolu mooy misaalum li ngay seen lépp lu tegewoon ci kawam bu boobaa day nërmeelu. volcan yi nag ci lii du doj lay faral di ëpp lu muy am li ko waral nag nee nañ la ñaari plaque tectonique bu nu dajee di jonjante di mbëkkante maanaam benn bi war morom ja ba ci des nuur wala ñoom ñaan ñëpp ñu daal di telli di jëm kaw loolu mooy indi lii di montagne waaye ne saabu loolu amee li ñu tuddee euh, jollite wala njolliteg li ñu tuddee yasaragu suuf muy. énergie bi bawoo ci biir suuf si yëngut suuf te muy tremblement de terre muy suuf su yëngutu boo ko xamul mooy xaru xott suuf si ci anam ak melowu jéggi dayoo ci sababu énergie mu yasara gu bari gu juddoo ci xeer yi waaye ci xeer yi ci biir suuf si juddug yeesaru googu nag muy énergie boobu mu ngi bawoo ci dooguk benn fay muy lii tuddee teles loolu nag nekk na loo xam ni day am lu bari yëngutey suuf yi nag dana sababoo ci ay anam yu wuute bi ci njëkk mooy bi nga xam ni mu ngi juddoo ci tuxaluk lalte gi suuf si muy li ñu tuddee plaque tectonique yi plaque tectonique yi nag ay xeer la yu ngand ngand te yaatu yoo xam ne jëmmi xott suuf si muy li ñu tuddee croûte terrestre bi day tege ci kawam plaque yooyu nag saa bu ñu déplacé woo daa am ñett yu ci mën a juddoo wala ko ëpp li nga xam ni nag moom lañu fi na ma fii mooy yënguteeg suuf muy tremblement de terre te mooy saa su xamee ni ñaari plaque muy ni ñaari lalte ci wolof sorente nan muy wanente nan ginnaaw maanaam déplacé nu nan dawante su boobaa day bàyyi mennum pax mu rëy su boobaa xotti suuf nag day xar lépp lu tiimoon ci kawam day daal di ci biiram mbaa mu nërmeelu daanu la mën a juddoowaat nag ci yënguteg lalteg yu suuf yooyu muy plaque tectonique yi mooy volcanisme mën na ci juddoo muy li ñu tuddee mballa xal waaye itam noonu la mën a li ñuy tuddee aw doj ak li ñuy tuddee càllal ak doj muy chaîne de montagne ak am montagne ngir mu amal montagne nag ni ki ni lay demee li ngi seen suuf mooy plaque océanique li ko tim nag mooy plaque continentale waaye plaque océanique bi daa ruufu ci plaque continentale bi bu amee nag lii mooy xew mooy tàkk-tàkk day da di juddu foofu nag mën naa jur li ñu tudde volcan waaye itam ci lay jurewaale li ñu tudde montagne mën naa itam juraale li ñu tudde chaîne de montagne mu ngi takku rek ci ni rapport bi demee maanaam subdivision bi ni nga xam ne noonu la lalte gi muy plaque tectonique bi dugg ci beneen plaque tectonique bi waaye itam noonu la mën a juree li ñu tuddee yëngu suuf muy suuf si xar te loolu mooy plaque continentale bi ak plaque océanique bi muy laltegu mbambalaan beeg laltegu jéeri ji bu nu wanantee ginnaaw wala sax ñaari lalteg yu mbambalaan yi wala ñaari lalteg yu jéeri yi muy plaque océanique bi bi waaye itam ak yëngute dana juddoo muy tremblement de terre muy séisme dana juddoo ci pétuk mbalaxal muy explosion volcanique maanaam benn volcan bu explosé mën naa jur ndax saa su ne fi volcan di nekk day nekk foo xam ne ñaari doj wala ñu ni ñaari plaque dañu fa daje muy li tuddee ñaari lal ba benn bi war morom ji ba mu jóg ca jonjon teg yi xew ci biir nag ak yeesara gu biir suuf si muy énergie géothermique bi bawoo ci saalub suuf si dal di mujjee jur benn magma muy li ñu tuddee ruite bu demee ba benn jamono jëmmi jamono mu daal di exploser muy toj waaye nag ci toj googu muy toj mën naa xarale li nga xam ni mooy doj wi wala ñu ni mu jur benn faay su boobaa li ñu tuddee yëngu suuf day am muy tremblement de terre ñetteel bi ci toppaat itam muy explosion moo xam lu mel ni ki bombe atomique wala yenn bombe yu luur yi muy arme luur yi mën naa jur yëngu suuf booba nag day fekk ni fa mu exploser daa jege benn faay su boobaa nag li ñu tuddee plaque tectonique yi mën naa daal di am ben yëngute hmm. moo xam day xar wala mu am benn déplacement bu am ci benn fay loolu jur jëmmi lalte gi daal di déplacé wu muy plaque mi yi déplacé wu wala ñu toj loolu nag daal di jur cour terrestre bi muy xott suuf si daal di bébbeeku surux ci biir pax yi saa su xamee ni nag ak yëngute am jëmmi pax mi ci làkku français moom la ñu tuddee foyer yi waaye fa nga xam ni fa la xar ba cosaanoo moom la ñu tuddee épicentre bu yëngute gi muy bu séisme bi. saa su xamee ni nag yëngute am na doj yi nga xam ni wala ñu ni xeer yi nga xam ni dafa nekk ca woti ca wetu pax ma day lox waaye mel ni luy taweeku muy li ñu tuddee vibration élastique loolu nag day jur lu mel ni ki. ay lëggi mbambaxi yëngute ñu di ko tudde paquet dondu sismique waaye noonu lay jollee jëm ci yeneen wàll yi nga xam ni ñoo ko éew noonu itam lay yàbbee maanaam lay njollile aw tàngoor tàngoor wa nag di sababu ci jonjonteg xeer yi loolu itam day tax xeer ak xandeer yi nga xam ni ñoo wër pax mi di golleeku muy li ñu tuddee fondre daal di jëm nag ci tellee suk wala xar-xaru mi yënguti gi bis bu yàlla sàkk nag xamtukat yi dañuy wax ni lu bare bari ci ay suuf dana am waaye yi ci doomu armée yi di yëg bariwut ndax li muy xew ci wara bi ñu dëkkee wala ci kaw suuf si mën naa bari yi ndax bu ñu xoolee jëmmi mulung bu suuf si muy globe terrestre bi dañuy wax ni 70 yépp ndox la maanaam lu ndox wër la kurut bi ci boppam waaye bu ñu xoolee li ci suuf wër moo ngi tolloo ak 30 pour cent dong loolu nag tax na lu ëpp ci yëngute yi ndegam jëmmi lalte gi muy plaque tectonique yi ñoo ngi jonjante ci géej gi su boobaa mooy waral yëngute yi di ëpp ci géej gi yi limu luy tolloog téeméeri junniy yëngutey suuf muy téeméeri séisme muy cent mille séisme téeméeri junni séisme daañu ko natt maanaam daañu ko gam-gam lee danay faral di am ci mépp at ci déli bii muy ci planète bii di suuf yi nga xam ni nag mooy ci ëpp doole dañu leen di limale ci jéej mbindare yi muy li ñu tuddee catastrophe naturelle yooyu nag mooy yi nga xam ni saa bu ñu amee dañuy yàq lu bari yëngut yi nga xam ni nag moo ëpp doole muy séisme yi ëpp doole dañuy wax ni day jeexee jeexital sax ci rotation bi suuf si amal waaye du nekk looy mën a yëg ndax day nekk lu day ni ay micro-onde wala microseconde lu day ni li ñu tuddee l'ordre de la microseconde muy ay ndogantaani seconde yu tuuti yoo xam ne nit ñi duñu ko mën a bàyyi xel loolu li muy tekki rek mooy suuf si ci boppam ni muy wëri boppam day am foofu ay vibration yoo xam ni nit ñi duñu ko yëg lool waaye dana am njeexit lu ñu mën a amal ci ay yënguteem lu ëpp nag ci yëngute yi muy séisme yi mu ngi juddoo ci liy dox diggante ñaari plaque tectonique muy ñaari lalteg yu tabaxu yi yu tabaxu loolu nag li ñuy tuddee yënguteg lalteg muy séisme interplate waaye ni yëngute gi di amee ci bitti ci biti lalte gi muy biti plaque yi noonu lay amee itam ci biir plaque yi muy biir lalte gi loolu nag li ñuy tuddee séisme intraplaque tabaxute gi nag muy tabaxu teg lalte gi muy lalte gi ci boppam ni ñu jox ko muy li tuddee la tectonique des plaques danay jur wurngalug yëngu teg suuf maanaam tremblement de terre boo xam ni daa xotti lef mu gudd gudd gudd te yaatu lool ñel ci mel ni Kiev wala diggante dëkk ak dëkk ni ki nga xam ni noonu la xottee Turquie Bahreïn jàpp Syrie ñoo xam nag ni yëngute suuf yi ëpp mu ngi xewee suñu koy xool ci densité géographique ca fa ñu tuddee ceinture de feu Pacifique muy gëweelu tàkk-tàkkul géej gu dal gi lool nag wala foofu ñu ni dañ fa mën a màndaxe luy tolloog juróom ñett ci téeméer ci yëngute muy l'énergie sismique ci at mu nekk naka noonu fa ñu tuddee la ceinture alpine làmboona fukk juróom ci téeméer ci li ñu tuddee l'énergie sismique waaye ci at mu nekk waaye itam fu ñuy tuddee les dorsales muy donkale yi ci wolof te nekk ci océan muy mbambalaan yi maanaam li ñu tuddee donkale yu mbambalaan yi muy dorsale océanique yi làmboona juróom ci téeméer ci énergie sismique muy yasar ak yëngute yi wala yasar yu yëngute yi xam-xam bi nga xam ni nag mooy jàngat xewte yu yëngute yi suuf muy phénomènes yi moom la ñuy tuddee sismologie muy yëngute xam ci làkku wolof jumtukaay nag bi ñuy saytoo yëngute gi ndax moo ngi waaj ndax ësti na ak fu doole ji yem ndax bu rëy la bu bari doole la bu bari njombe la wala bu woyof la jumtukaay boobu du sismographe waaye ay njureefam muy ay résultat am muy li muy wone li muy produire moom la ñuy tuddee sismogramme waaye itam yëngute yi day am ay xeeti satellite yoo xam ni dañuy mën a enregistrer ba noppi itam localiser muy dàkk dayob li ñu tuddee yëngute gi muy ay enregistreur ay numériseur ak ay ay antenne GPS ñi nga xam ni nag ñooy waa Turquie ak waa Syrie ak ñeleen gëweele ñu nga xam ne yënguteegu mujj gi laal na leen te mu am ci 6 février 2022 ba bis boo jiitoog ba ca topp bokk na ci li ko sabab mooy jëmmi fi ñu positionné woo dafa nekk benn faay wala ñu ni dafa nekk diggu ñaari lalteg yu tabaxu muy li tuddee plaque tectonique muy faay plaque tectonique loolu nag plaque tectonique bi guddaay bi ni mu toll dafa tax bu yëngutoo ci li nga xam ne moom la xamtukat yi joxe mooy waral mu mën a am guddaay bu toll noonu waaye waa ñii di waa Turquie itam wax nañ ni ci seen immeuble yi ñu doon tabax doon nañ ci bàyyiwaale xel lu mel noonu waaye nag li tax bàyyi xel gi taxul mu mën a jeexital lool bi jéye ji dikkee moo di ne jéye ji muy fi nga xam ne fi la yëngute gi xew muy tremblement bi pax mi li mu xotti dafa nekk lu yaatu ba ëpp su boobaa mécanique bi gaañi di def wala xarala gi ci boppam ngir bu tremblement bi amee immeuble bi du mën a xar dana des waaye nag la fay des mooy taxaw gi li mu waral mënuñu ci lu bari boo mu amal ji yi mu amal yal na yàlla yërëm mbokki jullit ñooñu nga xam ne ñoo fa ñàkk seen bakkan yàlla def fu ñu jëm dàqal leen fi ñu jógee te yërëm na ñun ñi dund ci suuf te war leen a fekk bis te yàlla woyafal tiis wa waaye mu bañati fa am ak bépp réewu jullit ci kaw suuf bu leenu toppee nag ci sunu càllale gi di xalam ëllëg ñu leeral leen immeuble yi naka la ñuy def ngir bu tremblement de terre amee mu bañ a daanu technique bi xam-xam bi fi ñuy sukkandiku loolu dana leen ci indil ab wëpp waaye ñu dolli leen ci yeneen yoo xam ne xëy na dana leen amal njëriñ kon bul fàtte like vidéo bi ak partager ndem neex na la